l'actu des Lions, nous allons retrouver à l'annexe du stade Charles Konan Bani euh, Grégoire Sambangom. foofa nag moom fekkee na li nga xamante ne tey moo doon séance d'entraînement des Lions c'était tout à l'heure à 17h Babou. Euh, effectivement Adja ki nga xamante ne moo di El Hadj Grégoire ak kii di Issa Pouye demoon nañ ci entraînement des Lions mu nekk seen troisième séance d'entraînement te ji nag maanaam joueur yëpp presque ñu moon foofu kenn kese moo ci moo manqué à l'appel mais ñu ñu xool ko ñu xool ko ak nga xamante ne moo di Grégoire. jërë jëf bu baax a baax mbokk yi ñuy teelu fii depuis la Côte d'Ivoire fi nga xamante ne nii moom mooy dalal fanweeralu édition ak ñeenteel bi nga xamante ne nii moom moo jëm ci Coupe d'Afrique des Nations 2023 Akwaba à toutes et à tous bonsoir Adja bonsoir Babou Ndour ñu ngi fii nga xamante ne ni moom mooy terrain annexe bu stade Charles Konan Banny bi nga xamante ne ni euh, segi équipe nationale bu Sénégal bi nga xam moom mooy tenant du titre maanaam mi yor raaya Coupe d'Afrique des Nations bi file lay amale li nga xamante ne ni euh, moom mooy avant dernière séance jëm ci lii di Coupe d'Afrique des nation bi ñu nekk fulla fayda moo amee fulla fayda kenn ak yow la yeeree fayda moo amee fulla fayda kenn du la Sénégal tey jii ak groupe bi nga xam ne présenté nañu ko mënees nañu ci lim tey li nga xamante ne rek moom mooy groupe bu toll ci ñaar fukk ak juróom benn ci li nga xam moom mooy ñaar fukk ak juróom ñaar daal di tànn alors loolu bu ñu koy wax dafay firndeel rek ne Youssouf Sabaly mi nga xamante ne ni ah, moom donte rejoindre na groupe bi tey mënees nañu jàpp ne ah, bokkagul ci li nga xamante ne nii moom mooy entraînement collectif bi avec ses partenaires ah, l'autre information bi nga xam ne tam mënees nañu ko fi tiire moom mooy Fodé Ballo Touré moom il s'entraîne à part ci li nga xamante ne mi moom mooy groupe bi donc moom il a son préparateur physique à côté mu ngi noonu di daw comme ni ngeen ko mën a gisee nii rek tout juste derrière moi

remercier euh, les ci li nga xamante ne rek moom moo nekkoon la rencontre amicale du Sénégal face au Niger à Diamniadio ñoom ils sont là dans le groupe ils s'entendent également avec tout le collectif alors euh, li ñu mën a euh, waxaat rek bokk na ci li nga xamante ni rek moom mooy lii séance d'entraînement la boo xam ne tam mënees nañu ci nattaat beneen boo xam ne daañu ko amal léegi ni ëllëg ci wàllu programme bi la loolu bokk waaye absence d'entraînement la boo xam ne nag à huis clos maanaam du ñu ko ubbil ñi nga xam ne nii moom mooy la presse laata ñu jëm ci li nga xam ne rek moom mooy Euh, loolee di la conférence de presse euh, d'avant-match conférence de presse d'avant-match boobu noonu tam jàpp leen ne dina am beneen euh, séance d' entraînement bu ciy tegu waaye muy conférence de presse bi euh, nekk tam li nga xamante ne ni euh, moom moo jëm ci bile entraînement ba léegi déterminé gu ñu li nga xamante ne ni moom mooy waxtu wi nga xam ne dinañ ko ci amal bu ñu ci jógee tam li ñu leen mën a fàttali rek moom mooy Sénégal jàpp leen ko c' est le champion d' Afrique en titre fasciné jongante fi nga xamante ne ni moom mooy ci groupe C bi bokk kook Guinée Gambie ak Cameroun muy wàccaayu li nga xamante ne ni moom mooy première journée dans ce groupe C kon le Sénégal qui est en train de préparer actuellement euh, la Gambie qui sera euh, son premier adversaire dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 ici en Côte d'Ivoire voilà li ñu mënoon a wax ci li nga nii euh, moom moo jëm ci cette avant dernière séance des Lions de la Teranga rendez-vous très prochainement bonsoir à